voilà ñuy jégalu nag ci euh, loolu rek nawet boobu nga xam ne dafa daggoon euh, tolluwaayu liggéey bi la nag ak béréb bi xat na yoon wi sori na te dañu mujj sax wàcc oto bi ñu nekkoon ngir rek euh, yoon wi gaaw ci ñun mbooloo mi nag bari na nag yi ak nit ñi ñëpp ñu raxasoo mu mel ni agsi nañ actuellement jàddukaay bi gis ngeen nag yi ñu ngi jàdd voilà ngeen nag yi ngi jàdd nag ñu ngi jàdd may leen ñu may leen ñu may leen ñu may leen ñu may leen ñu nag yaa ngi noonu di jàdd nag yaa ngi noonu di jàdd nag yaa ngi noonu di jàdd voilà nag yaa ngi noonu yaa ngi noonu ngeen gis mbooloo mi ngeen gis mbooloo mi ñu ko daan defee rek lépp ndax ëllëgu réew mooy xale te li ñu fi fekk mën naa wax 90 pour cent yi ay ndaw lañu te avenir bu réew ëllëg daal ndaw bi en direct ministre bi en direct ci Jannatul Mahwa waa ngeen seen bant bu mag bi nga xam ne def nañu ko waa ngeen seen tamit nag yi ba tey ñu ngi noonu rek nag yaa ngi noonu nag yaa ngi noonu Toulouse TV begini, pasien nii fas yéene rek ànd ak yéen di leen béggee te di leen béggal waaw nag yaa ngi noonu nag yaa ngi noonu waaye mbooloo maa ngi noonu tamit Wow, nag yaa ngi noonu ànd ak cawarte nag bu mat sëkk muy loo xam ne la ko Cheikh Béthio daan defee waaw ñu ngi noonu agsi nañu fi nga xam fi lañu ko tàmm daan gisee Cheikh Béthio da ko and ak jëwriñ waye diko and ak njabot bi yep ya Jannatul Mahwa ngi nii waaw nak yaangi ni tamit ñu ñëwaat ci tali rek pour xol entrée wu nag yi rañi fi teewaayu police tamit ñu sécurité affaire yi noonu la wara démé demee mu bari nak mbooloo mu bari ngeen gis mbooloo mi ñom ñep ñu ngi ni taxaw di dégé waaw mbooloo ma ngi nonu mbooloo maa ngi noonu mbooloo maa ngi noonu mbooloo maa ngi noonu mbooloo maa ngi noonu léegi nag dugg nañu li des mooy nit ñi dugg waaw kenn ku ne yaa ngi dugg dugg soxna yi tamit seen teewaay ràññee nañu ko waaw ñu ngi noonu en direct ngeen koy am fii fii Jannatul Mahwa seen seen bu mag bi seen bu jàmbaare bi macha allah di def euh, kéem tolluwaayal kattanam rek ngir rek euh, jox leen li ngeen soxla jox leen li ñu soxla may ñu may ñu may ñu may ñu voilà nag yaa ngi noonu nag yaa ngi noonu macha allah en direct ngeen koy am Jannatul Mahwa mbooloo mi nag foo ko takk rek foo yaa ngi waaw nag yaa ngi noonu baa ngi noonu muy bâtiment boobu jënd seen mooy commissariat spécial police bu Touba nag yaa ngi noonu yaa ngi waaw nag yaa ngi noonu yaa ngi noonu Serigne Saliou Thioune xalifaab Serigne euh, Cheikh Béthio Thioune waaw fàttali leen nag rek euh, ci biir dox bi nga xam ne ñoo ko doon dox ànd ak nag yi euh, kenn ci rakki Serigne Saliou Thioune mu ngi ci woon kenn mu ngi ci woon wax nañ ñu ne sëriñ Khadim Thioune la. wax nañ ñu ne Serigne Khadim Thioune la lu ci mën a am rakk la ci Serigne Saliou Thioune ñu koy wax Serigne Saliou Thioune Tapé wala boog Gueule Tapé waaw nag yaa ngi noonu mu mel ni yëguñu coono bi yëguñu coono bi jawarte la ñu ñëwee waaw lan mooy dugg ci jawali nag yaa jawali ngeen seen noonu nag yaa ngi ci pénc bi fii may wax ak yéen kat ah yegg si leen yegg si leen damaa jëm ci jëmu joo xam ni day mel ni ah ku ko xam xam ku yàggal sëñ Béthio. voilà xam ni magi taalibe la yàgg liggéeyal sëñ Béthio. voilà xam nga mag bi nga xam ne ñoom tamit mu ngi noonu. waaye mbooloo mu bëri ngay gis nag ginnaaw. fonk nañu aada fonk nañu cosaan waaye gëm nañu ne jëf-jëf bi lañu waa tubaab yëpp génn na doon benn nag na doon ñaari na doon sa aw voilà ñu ngi noonu ñu xoolaat jëriñ yi en direct bi seen seen groupe ministre bi point bi point net mbooloo maa ngi noonu mbooloo maa ngi noonu wetu bis bokku mbooloo maa ngi noonu jànnatul max waa ngi waaye nag yaa ngi noonu wàccaay wa mu ngi noonu ngeen gis sant boobu nga xam ne ngi ci di liggéey mbooloo mi nag foo ko takk rek euh, weesu na foofu mën nañu wax ne rek li ñu ci daan gis loolu la ñu ci mbooloo yu bëree bëree bëree bëri su apul tamit wàññi gi ñun li ñu daan gis ñun gisaat ko waaw li ñu gisul nag moom gisuñu waaye li ñu gis moo di mbooloo mu takku allah tëjee solo bi tamit foofu mbooloo mu takk ñu ngi fi ñu dox ndànk xool euh, li nga di barrière yi nga xam ne moom la ñu teg ci la nit ñi wéeru nii waaw on dirait ngeen gis ñax yi nga xam ne ñu koy teg muy bopp wala mbopp wala lu ko waay mën mu ngi noonu ñu jël ngi noonu mbooloo maa ngi noonu Jannatul Mahwa la ñu nekk ci ceefu euh, cantaakun yi Serigne Cheikh Béthio Thioune ministre bi en direct en direct en direct ngeen mën ñu xool ci YouTube bi lépp loo xam ne rek euh, ruuse na fi ci euh, nag yi ci euh, fi ñu jaar yëpp ba ak jumaay Serigne Touba niñ ko daan defee rek noonu lañ ko defee ñu ak si nag Jannatul Mahwa voilà ñu ngi ci bi lépp rek ci waajtaay bi ngeen gis na dëkkuwaayu Cheikh Béthio bi moo nekk noonu ci moo doon euh, këram gu mag ci Touba Cantakul ñëpp xam ko nag voilà kër gaa ngi noonu kër gaa ngi noonu kër gaa ngi noonu tey ki fi toogee toogaayu Cheikh Béthio moo di Serigne Saliou Diouf mi nga xam ne mooy xalifa Cheikh Béthio kon moom moo nekk ci kër gi fas yéene fee def defe màggalu Touba 18 ak mboolem taalibe yeeg soppe yeeg ñi nga xam ne rek. kër gaa ngi noonu def leen ko kër gaa ngi noonu waaye ngeen gis tamit mbooloo mi rek mbooloo maa ngi noonu. gën am ay licence wet laa doy na ñàkk chance amoo morom doo concurrence mërum yàllay xaatim rasul ñiisi laa lu gënal oñaan yoon kee day bale présidence Côte d'Ivoire Gabon wala bu France yaa a ñu def benn pause bu ndaw rek dellu si waat ak yéen ñu bañ vidéo yu tudd di def sonal ci euh, seetaan bi moo tax ñu koy def ay dagg-dagget ci kanam rek ngeen wéy rek topp bi incha allah si waat ak yéen